publique def ko recrutement boo xam ne da koo teg ci yaama neex di recruter ay mbokkam di recruter ay militant di recruter ay dëkkandoom te loolu war na am ci Sénégal la xam ne dëkk yoon na ay ndaw bi ne su a tuur yi la am na licence ñii dañoo jàng am seen ligaasa toog mënuñu am xëy la moo tax mënuñu am xëy parce que amuñu mbokk bu bu nekk ñu nguur wala nanguñoo wala nekkuñ dëkkandoo nit wala nekkuñ tërandoo nit loolu dafa ñaaw Sénégal dafa dafa dafa dafa romb dafa romb dafa romb tolluwaay Sénégal dañuy dëkk boo xam ne ni dëkk yoon la cee ku jàng yoon xam na ni euh, li ñuy wooye citoyen maanaam ñu dox benn réew ñoo bokk waruwaay waaye nag ñoo bokk wareef ñëpp a tolloo waruwaay ñëpp a tolloo wareef munoo waruwaay ñëpp tolloo na ko ñu ne tool waa ngi ñëpp a ciy bay su su su su euh, deq góob jotee ñu ne la yow doo am loolu la ñuy loolu la tubaab bi wax rupture d'égalité devant les chances ñëpp a ci war a tolloo bu neexee ñëpp a jor tolloo parce que ñëpp a fay ëmb su naqaree ñëpp a jor tolloo mais mënuñu concevoir ñu jël ñenn ñi parce que ay mbokk lañ wala ay militants lañ di te loolu noonu liñ liñ ciy laaj mooy ñaar moom ñu audité recrutement de la fonction publique parce que audit recrutement yi xam nañu tegul ci yoon ñu ñu def audit deux ñu pour recrutement yi ñu waxoon depuis yi xam ne ni recrutement mo 2000 la ñu wax li ci des fu ñu ko dugal ak lu ñu ci nar parce que li ñu ci nar ñun xaale xam ko mais duñ liñ ci naan xam nañ ko du ngeen bàyyi te loolu noonu ñu ngi demandé président de la république jël ay responsable parce que moom lañ fal ministre bi faluñu président lañ fal nga jël ay responsabilité nga jël responsable su fekkee ministre bi mënu mënu mënta liggéey teg ko ci yoon ne ko fi jëlee mu nit ñi ko mu nit ñi koo xamante ne au moins xam na li ko wax parce que moom apparemment xamul li ko wax ñun xam na li ñu ma mais moom xamul li ko wax waaw plan d'action yi moom du jeex day doog a tàmbali rek bi day a te chaque jour di ngeen gis leneen mais liñ nar duñ ko wax ndax kuy yoddoo sax kuy yoddoo sax te ministre su yaakaar dañ koy bàyyi mu def lu ko nekk ci recrutement yi non kon comprendre lu la tey nag comme d'habitude ay responsable dañuy jël benn nombre symbolique rek ñu ñëw waaye nag su fekkee mu dégg ñu jot daf danañ leen yee dinañ leen yee te su leen yee dina métti ñëpp te bëgguñu àgg foofu parce que ñu ne responsable jàng nañ xam nañ luy yoon xam nañ lu ñuy dox lu ñuy doxalee dañuy moytu dañuy moytu def naka suñu noonu te ñu ngi ñu ngi ñu ngi lancé appel président de la république et que mu jël responsable dem leneen li ci des ñun am nañ ay pexe yoo xam ne nas nañ yoo xam ne mën na tax ndaw yi am xëy comme ñoom si dañoo tële ñun am nañu solution dinañ ñëw ñu toog parce que ñu ngi waajal organiser benn forum ne moom la ñuy parce que moom mooy suñu premier interlocuteur ñi des da leen fay teg ñu liggéey suñu liggéey dañu leen di jéggi dem ci moom mi nga xam ne moom mooy borom kër gi parce que su bëree ci kër borom kër koy liggéey moom mooy borom kër gi ñu ngi koy ma dëggoon ni lii ma dëggoon ni waaw lu laaj rek si nga bëri di waxee lu lamb ji laaj rek dañ ko def en tout cas parparloo gi ak tappale gi ak politique yi moom su ma fi nekkoon xeex keneen dafa nekk di xeex su ma fi yàlla jëlewul keneen day ko météo loolu gis na ko xam na ko allo.